alxamis ji nag mooy alxamis ju mujj balaa ñuy jeexal campagne bi jëm ci élection yi dimanche incha allah suba lañuy fa fas yéene këmmal wala ñu fegal ci élection yi ci campagne bi léegi nag bu doon campagne bu laaj ay njàngat avant élection yi Sonko bi mu wootee arena dama defoon benn chronique ma ni pari risqué ou osé bi mu ko réussiree ma ni gañe na pareem maanaam Sonko loo ne mënu ko rek da ko defagul waaye lépp lu muy waaj rek bu ci eggee rek nga ne nekk de waa ji nii la toll te loolu mbiri sunu borom la te ci biir élection yi ak ci biir campagne bi di nga ci def njàngat ci xereñ gi ma jàpp ni xereñ na ko ci wàllu politique naam sax yenn saay mu def ay erreur mais erreur yooyu day mujj sax def ko atu atu parce que erreur mënta ñàkk ci nit njumte mënta yàq ci nit mais loolu lépp moom après da koy jël def ko lu positif maanaam même lu négatif da koy transformer mu doon une énergie positive comme ni ko tubaab bi di waxee loolu déjà li koy indi ci nit pour man mooy mantalement mooy nit ku pare maanaam nit ku pare ci wàllu xel maanaam moom xëyul rek ne damay dem élection damay politique mais li mu nekk tey pour man da ko waajal ay at sur le plan mental yaa ngi daan ngeen dégg jamono Sonko discours am la lay wax man yàlla rek laa gëm yàlla rek laa gëm waaye gatsa gatsa mortal komba maanaam loolu ki la koy wax mooy mën lii pare naa sax pour ñàkk sama bakkan maanaam te nit bu demee ba egg ci niveau wu mbir jaral ko sax bakkanam des ci mooy mantalement forgé na boppam parce que ñun suñu réew li ñu tàggatee ak li ñu yore mooy njariñ loo fekkee maanaam nit bu dee sonn ci dara pour jariñu moo tax ñun noonu la ñu yaree ñun ci suñ bopp noonu la ñu tabaxee mais Sonko moom bi mu ñëwee yooyu yëpp da ci préparé boppam maa ngi fàttaliku bi muy taxaw yi terrain ni Kër Massar samay dem naa sama yaay ñaanal ma dem naa sama bàmmeelu baay pare naa pour dem waaye projet bi li ma ci bëgg dina am loolu nag mooy bataille psychologique sur le plan mental pour man la Sonko mënee gars yi parce que ci wàllu xel nit parce que nit lépp ci bopp bi la bopp bi la lépp ci bopp la lépp ci ngëm-ngëm la da ngay dégg sax ñu naan la non Sonko amul sëriñ du sango du takk du takk gàllaaj du sangaw saafara parce que loolu même bu dul dëgg sax sur le plan mental mi ngi gëmal ñi mu jàkkaarlool ni mënoo leen ci man dara xam ne pour ay nit mënal la dara yow il faut nga gëm ni mënal na la dara mooy waral am na ñoo xam ne du lekkandoog nit ñi du naanandoog nit ñi ñi ngi maytu fii ngi lii fii ñi ngi lii fii te olof nee na loo ragal dalay gaañ looloo tax Sonko benn Barthélemy Dias mën ko wor pourtant ñëpp nee woon nañ ko maytul Barth maytul diw maytul diw maytul diw maytul diw mais ragalu leen dafa dem ñooxu leen bi mu waree jëflante ak ñoom dafa jëflante ak ñoom bi tàqalikoo jotee tàqalikoo bu jógewul ci moom mais ci ñi mu ko seqaloon la te nit pour man boo nekkee ak moom ñaari fan ñetti fan am na loo jàngee ci moom même bu dee ni sax parce que tubaab bi dañuy wax dañ naan dans c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les meilleurs maanaam nit jaar-jaaram moo koy def góor jaar-jaar bu metti maanaam boo ragalee lu metti am na foo xam ne munoo fa egg moo waral syndicat impôt et domaine bi impôt et domaine tàngee jër kenn ñamul yëngu mu créer ko jàkkaarloog direction yi mbëkkanteeg ñoom ba tey jii boo demee impôt et domaine boo gisee liggéeykat impôt et domaine boo xam boo xam ne yàgg na fa ndeysaan bu lay defal sedd ci Sonko da ngay xam ne ñii waa ji dafa mel ni ku leen jëlee ci safara yóbbu leen ci àjjana parce que dama ci mës a dinaa la jox benn exemple dama mës dem kër amija Amidia ndeysaan Cheikh Baara moo ko doon seeti ñu ànd mooy bi amija nekkee ci kaso bi ñu dem seeti yaayam comme man géejuwaay laa juddoo min naa géejuwaay ñu dem kër amija yaayam di ñu wax nan la Amidia duggee ci Pastef yaayam na man impôt domaine laa nekkoon yaay Amidia moo ñu nettali lii nee na bis bi Amidia ñëwee na ko dama bëgg a politique bokk parti bu nekk Pastef yaay Amidia nee na moom presque PDS la woon ab Ablaye Wade la bëggoon mu ne ko parti boobu ku ko jiite mu ne ko Ousmane sonk impôt domaine la ne yaay na ko bu dee sonk mi ma xam de damal bokk ci biir partem def seede ci moom ak taxawu gi mu leen taxaw ci impôt et domaine te loolu du moom dong man bari na ay nit yoo xam ne ay agent la wala ñu nekk inspecteur impôt et domaine am na ñoo xam ne ñoo sut sax àlliwoo Sonko mais niñ gëmee Sonko ci ay inspecteur di trésor ki ci mel na Matar Sène xam-xam nekk financier mais presque ñàkk na léppam ci àddina parce que Sonko moo tax am na ñu nekk impôt et domaine Waly Diouf Bodian tey inspecteur principal mu nekkoon adjoint direction général directeur général bi mais moo doon kilifa Sonko mais moom du dafa mujj bootu sax ci ginnaaw Sonko lan la Sonko liggéey ba ñi ko sut àlliwa jiitu ko impôt yi doon mag ko gëm ko mooy da leen taxawu dans les moments les plus difficiles maanaam moment yi gën a metti dafa taxaw xamul lu tax may fàttali lii taxawaay bi Sonko am tey du du tey parce que yàlla dafa dogal semaine bii ak yi xew yëpp ma am ñu ma cokkaas di waxtaan ak ñoom ci ñi xam Sonko bi ñuy créé Pastef yooyu ñu am yu ma nettali dama bëgg ñëw ci yooyu pour que ñu xam nit ki ak caractère ak personnalité bi mu am du rek tey la ko am mais lu lu mu tabax la lu mu tabax la damay waxtaan ak benn waay du ma tudd turam mënu ma mënu ma seen <laughs> waa ji te boobu Sonko falaw guñu ne mun ma suñu waa ak a sakk Sonko la may wax mu ne ak a sakk ak a dëgër bopp du ku ñuy boobu ma ne ko Macky Sall mu ne moom mënul ko dara billaahi noonu la mu ko waxee mu ne parce que fi mu jaar la te ñi nekk ci administration nekk impôt domaine jaar ENA xam ne dal leen di tànn ñooñu du ko jug yilif leen man waxuma booy ci mbedd mi nii ah waxuma ñi ci internet mais damay wax maanaam administration bi ñi ci topp Sonko taxawal Pastef dàqu leen jàng ëpp leen àlluwa sutu leen dara mais pour pourquoi ñu bàyyi seen lépp doon ay Baay Faalam topp ko yaakaar ko créer le parti Pastef parce que Sonko créé wu ko ñu wóolu ko ñëw ne ko jiiteel Pastef ba ñuy ji même syndicat bi Sonko créé wu ko paraît-il dañoo dañoo créé syndicat bi ñëw ne ko jiite ko. kii bi la même chose dañ ko créé na ko jiite ko te la maam Cheikh Ibrahima Fall doon wax muy dëgg yaa ñii moom moom a gënal maa leen ni moom mais moom ñi mu àndal ñoo ne ko yaa ñii moom parce que mosul tàllal loxoom ci ni maa leen di jiite ci lii même bi projet bi di tàng dëgg-dëgg terrain Yékini Kër Massar maa ngi fa dafa taxaw mu leen mbir mi du mbiru nit projet la jur boobu ki ma àndaloon dama ne ko bu dee li ñuy wax nii dëgg la ci ñoom ñii dañuy jël nguur gi parce que fii ñu fi mës nekk ñépp je leen daan wax man man man duñ wax ci turu kuréel gi mais man lay wax man man man man man man te mën a mën a goo gis wala fi nee na du moom waaye ñun la foo ko gis koo dégg mu naan ñun la am na lu mu àndal parce que jàpp na ni ay jël na ay égom teg fale mat na njiit te sax boo xoolee ci wàllu diine sax dañ naan faral di laaj buñ ko jox maanaam ñu mën dëgg-dëgg duñ laaj duñ xëccoo mbir yay raam ba tegu ci seen loxo parce que ñëpp ñooy mujj nangu ni kii mooy waa ji léegi personnalité bu mel noonu bu dee nit ki da am. dem ba bis ñëw ay conviction permettre ko xeex injustice dans l'administration ak fraude tax ñu dàq ko waa taxul mu bàyyi de am na ku mu doon doon danaan dépasse ga ca kër gi di xalaat njaboot gi mu jóge fa dem assemblée ni mu ba ni mu demee 2019 coono yi fi jaar mbiri aji saar tëj kaso jàpp dóor ba dara desu ci lu dul mu jël nguur mooy am na loo xam ne nit yéenewu ko sa doom ju mu jur parce que boo demee ci yenn réew yi ci Afrique fii gis nañ ay nit yu rey seen bàyyi ndax nguur du ma tudd tur am na ci famille yoo xam ne ci Afrique fii sorewul Sénégal mais comme am na yoo xam ne mënuñu du ci dugg ay frère yu tëjante kaso ndax xëccoo nguur maanaam li ñoom seex Yérim sekk doon wax naan maanaam nguur du li ñuy sànni du lu ñuy tayle du lu ñuy maye pour ñoom nguur foofu la la nguur tollu waa ji malgré li mu daj yépp mu jël nguur gi xeexal jomaay ñu pare na ko jël nguur gi jox ko mu falu mu dem nekk premier ministre am moom mi waroon a nekk imam bi moo mujj a nekk naayim bi te bu doon keneen du ko def tey keroog dama koy wax sam benn waaye ma ne ko ji nga Sonko li mu def man de gisaguma ci àddina mu ni ma non Russie Vladimir Poutine ak Dimitri Medvedev ma ne ko non boobu bokkul kii dafa jiite Russie deux mandats mënul am troisième mandat mu jël colisteer am def ko candidat samp ko def ko président ñëw nekk premier ministre am mu def benn mandat mu jàllax ko ñëw toogaat bokkul parce que boobu dafa fekk Poutine nekk président ba noppi te bëggul si tàbb ci yeneen loxo mu def jeu politique loolu lañ tuddee jeu de seize musical noonu la ko tubaab yi di waxee dem dellu siwaat comme ni Donald Trump def maanaam dem dellu siwaat mais kii daa musul toog ci seize bi te ñu li ñoom seex Yérim ak ñenn yoo nguur kenn du ko dénkaane te ak ay dëgg waaye Sonko yooyu yëpp bàyyi ko xel loolu nag li koy indi mooy imaan bi comme li may wax yàlla rek laa gëm maanaam liy xew ëllëg est-ce que dinañ ko wor est-ce que dinañ ko lii est-ce que dinañ ko parce que li ko dal ci ñoom Barthélémy Dias ak ñooñu mënoon na ci jàng ne balaa may joxe nguur dinaa ko waajaat lu ma nit jege jege dinaa tey parce que Pastef en 2019 mi ngi dem élection ak coalition jot na bu mu juumul ah coalition jot na bi 2019 jeexee presque ñëpp dañ ko trahir dem fekk Macky Sall mais teewul la mu nekkoon mu nekk ci maanaam moom ñi muy àndal ñooy wàcc yoon wi waaye moom dafa focus yoon wi mu tegu ca la ne. ba tey épreuve yooyu muy dund mi ngi koy dund ñëpp foogoon ne bu ñëwee ci nguur day noppalu tey la gën a sonn. élection présidentielle bi mu génnee ci kaso bi ginnaaw koor gi yi dafa dem këram seeti njabootam añ reer maanaam reer ko boobu comme koor la mais noppalu sangu gis njaboot mais Sonko dafa dafa dafa song àll bi pour walla état d'esprit bi waa ji yor huit mois gisul yaayam yor ñaari soxna mais taxul mu jublu fa maanaam il a tout sacrifié même doomam bi doon def bac ñàkk ko ci jamono yooyu la mais Sénégal la gis mais fi mu jëm la gis loolu il faut que ma dellusiwaat ci pour que ñu xam personnalité ñi jàkkaarloog moom ne personnalité boobu malgré bu xeex jotee dina xeex bu politique jotee dina politique waaye bu naxante jotee dina naxante parce que politique intelligence la maanaam ku la gën a intelligent pour man moo la dàq politique te Sonko pour man dafa intelligent intelligence bi dafa feeñ ci campagne bi parce que comme ay deux mille dix-neuf ak yooyu yu fi jaar ak yooyu ak euh, deux mille vingt-quatre yooyu yëpp ju jàll la mais intelligence bi balaa ñuy egg ci élection yi dafa dem Guinée dafa dem Mali Mali. Sonko premier ministre Mali bi jógal may ga na ko fin stratège nga te da ngaa intelligent maanaam loolu wax Sonko parce que ni nga def ba jot ci nguur Macky Sall dem nga teg sa nit di doxal loolu ku intelligent moo ko mën loolu dañ ñu naan Sonko dafa tàng xët xët xët xët wolof yi nee na jasit gëmm na waaye xel maa ngay gis xam na jasit dafa soxor mais xel lay demee moo tax ku mu yot jàpp la lu tax ma ni la Sonko dafa intelligent ni mu demee ci élection yi dafa fexe ba ji nga politique li mu teg ci wàllu économie teg ko ci référentiel bi jëm deux mille cinquante ñun dunne lépp parfait lépp jaar yoon parce que œuvre humaine du moo waral projet bi ñu defaraat ko tëggaat ko pour actualiser ko méngale ko ak ni réew mi di doxee mais li mu njëkk li mu njëkk a def mooy képp koo xam ne opposant ngoon bari xam-xam yaa ngi ci wetu Sonko Modou Lamine Diallo Modou Lamine Diallo mënul dajale mbooloo mais bu doon opposé Sonko mun na ko dajji parce que expérience am ci wàllu koom ak jaar-jaar mais ñoom fexe nañ ba Modou Lamine Diallo ñoo seen wet seetlu leen baax li may loolu tax nit ñi bu ñu gis benn la Lamine Diallo naan noo paa bi li mu fiy def <laughs> nga gis Boubacar kamara li ñoom Sonko di samp mën nañ ko dajji ci wàllu xam-xam parce que ñii liñ teg xam-xam a koy dajji du Bougane a koy daj du Barthélemy du Pape Djibi du Thierno bokkum du Anta du keneen a keneen ñoo koy dajji loolu moom nekkul ñëpp xam parce que niveau bi moo kawee léegi ñi ko mën a daj yëpp ñu ngi seen wet nga dem jëli ku mel ne Mamadou Diop Decroix ñu bari dañuy gis paay naan lan la ñuy def foofu mais ñooñu ñu jege la ñoo gën ñu sori la boo yoree pouvoir parce que nag dañoo am xam-xam te bépp sew-sew bu ñu gis ci nguur mun nañ ko seppi démb Decroix wax na leen ko dama opposé Senghor opposé Diouf opposé Wade ba opposé Macky nga ñëw El Hadj jàng koom-koom ñu dem jëli Déthié Fall di nga ci gën a brillant brillant ci coalition sàmm sa kàddu mooy Déthié Fall ingénieur la te dafa bari xam-xam nekk dans le privé du mbooloo Déthié lan soxla ñu jël Déthié teg seen wet léegi si seen kanam kan moo fa ne yaa rien léegi mbir mi day leer te Sonko ci biir campagne bi. lan la doon wax mbooloo mi mu dajale ko fu mu dem def ko doom fu mu dem def ko doom fu mu dem def ko doom gars yi xam ne mënatul jongante ci mbooloo moo tax la mi dem bi ñu ko laajee na ko lu tax doo leen mitin mu ne noo ñun yoruñu xaalis buñ meeting yor nañ ko parce que fu Anta nekk Bougane nekk fa Barth nekk fa ñeneen ak ñeneen nekk fa te senegal te même bu ñu amul xaalis li ñuy projet bi ñu yor bu jaroo loon Sénégalais yi senegale yi ñoo yëkkati seen xaalis def ci pour ñoom. Barth mën a gagné kon ñoom jaraluñ dara sénégalais yi parce que nee na yor nañ luñ campagne teg ci Sonko dugal benn galgal bart parce que xam na ni Barth ville de Dakar ak cinquante milliards budget mu ni ko après élection yi dinañ xol ville de Dakar ni muy doxee waxoon naa ko jomaay nii na la audité day tax Barth ragal même bu noon génnee xaalis pour def meeting de clôture da koy waaj ndax fi ko waaj yu dugal moo garaaw mooy ñu ngi ñëw te ñëpp xam na salaire maire nu mu tudd bi boo fi demee ba mën a am xaalis booy may ak booy séddale nit ñi war nañ poser question moo tax Bart na yoratul Bart moom démb nee na moom daa pauvre nee na moom daa ñàkk yoratul tous bu dul caravane sax mooy loolu. gagné Dakar mu ngi gagné Dakar mel na ku sonn ci campagne bi nga dégg ko pour wan intelligence su Sonko Bart am mbaxane bi mu doon sol mooy Bart bi élection yi tàmbalee rek mu dem Tamba dekkoon na fa saaga fa. xam na weere na ndakaaru yëpp bàyyi ko barte fexe ba bëgg a jël mbaxane fitna gin ko solal wala grand boub bi mu sol solo ko Abbas Fall moo indi mu provoqué Abbas Abbas ñu tooñ ko mu tooñar bi ci ay wax léegi mbubbu violence boobu mu solo lan Abbas comme nag li naan chasser naturel il revient souvent au galop jikko ak borom pax Bart li mu tàmm depuis 2005 bi mu duggee parti socialiste mooy le guerriérisme ak politique gu bandi bandilu léegi bart bëgg a xëy bëgg fi nekk benn abbé wala benn wàlliwu dem Touba toog ci kanamu sëriñ ci Tiwaawan ci ni nii bëgg wane beneen Barth parce que xam na ni mënoo nekk maire ville de Dakar jidde tête de liste ba pare bëgg a nekk bandi mënul ne mu jël mbubbu bandi bu ko solal Abbas heureuse mais ci ay waxam mu def erreur mbir am ndar mu assumé ko mbir am mbàkke mu assumé ko na ñun la ak suñu lii bu lii lii kërëb kërëb Sonko profitoo ci jël mbubbu fitna bi mu bëggoon solal Abbas Sonko solalaat ko Bart loolu tax démb boo ko seetaanee ci Pape nga njaay Bart day def la tout pour ñu wane nii Bart bu civilisé la ñun danoo war a doon exemple suñu doom yi maanaam di diwa loo xam ne xeeñu ko léegi nag mbubbu mbubbu boobu Sonko solal ko Sonko da ko solal ñëw fekk ko Baobab défier ko jiite mbooloo mais mu doon occasion pour mu dajalewaat ndakaaru loolu dama ni Sonko bu doon ni Dakar da leen dafa nekk tànk rek ci leen Korok la ko récupéré ci Bart maanaam Korok la ko récupéré te loolu ay erreurs yi Bart def la léegi mbubbu violence boobu ñu ko solal moo tax mu dem ci Pape nga Ndiaye bëgg. dindi ko mais dem na ba ci biir émission bi moom ak Pam nga ñuy xuloo maanaam jikko ak boroom pax nature am la day déconné mbëkk na fa par li muy xëccoo ba nar a gedd yu ay yooyu mais bi muy ñëw ci émission bi dafa ñëw pour jaay image am jënd ay vues parce que bu dee Dakar boo xoolee ci biir émission bi mi ngi naan bi nu amee trois cent mille voix trois cent mille voix yooyu mooy trois cent mille yu doon seetaan kon dafa bëgg wax ni ñi ko doon seetaan yëpp ay ñi ko war a woteel lan alors que ñi lay seetaan bari na ci ñoo xam ne carton rouge lay dóor <laughs> ak yeneen ak yeneen mun na am sax ñi ñi ci ëpp ci ñi lay seetaan say noon lan loolu nag du baromètre boo xam ne man lool nag des fois les réseaux dama ciy tey du baromètre bu may tey pour walla Sonko fi mu ne. daj na barte sànni fële Bougane tuddatu ko parce que Bougane du marché parce que du tête de liste Ba mu jël mbiri mille milliards yeeg ñoom Macky sàll sànni tuumaal leen Macky bi muy waaj ne day ñëw ci réew mi Sonko da ko tu da ko jiiñ fàttali ko gestion léegi Macky nekkatul ci xalaatu ñëw ci réew mi mais fee na taxaw di tontu ba dugg ci doy yoo xam ne yi dañ ko ji mooy WhatsApp live. yónnee lii yónnee lii pour walla ko pour man ni muy politique ak gars yi ku ne daa am bis maanaam campagne bi li naan pôle bu ne daa am lu mu fa war a wax waaye candidat bu ne daa am lu mu la war a wax Ablaye lii bi dem na de candidat bu ne daa am lu mu la war a wax seetluwoo fu mu dem bu waxee ci pôle bi wax ci koom-koom wax ci programme am wax ci léppam ak la mu bëgg day tànn benn candidat waas ko ba sénégalais yëpp génn ci moom parce que nag fàtte xaju fi loolu na bu gars yi bëgg a judduwaatee bëgg nekk fi ay nit yu bees Barth bëgg xëy bi ku nekk ak abbe Macky Sall moom bëgg fi nekk nekk benn wàlliwu boo xam ne mosul rey mosul tëj mosul yàq mosul sàcc Sonko fàttali ko dóor ko mille milliards ñu naan am nag amul Amadou Ba Sonko dugal ko ci benn cercle boo xoolee Amadou moom da koy gérer bi ñu paree ci loolu am na ci candidat yoo xam ne moom du leen tudd parce que matuñu mbuus te dañuy yàq mbuus parce que campagne bi am na ñu ci bokk war ñu ci woon bokk ba seetaan mais c'est-à-dire que le ridicule ne tue pas war ñu woon sax nekk candidat parce que nag àdduna am na ñoo xam ne danoo bëgg a yilife mais ñoom danoo xamul ñoom daloo war da leen war di yilif adduna ñëpp mun ñu nekk kilifa mais candidat yooyu du mu ci dellu si mu jël Tahirou Sarr parce que tayru booy yi tayru tayru discours nationaliste sonk daaj ko mais dafa am lu Sonko waxul ci discours nationaliste mooy africain warul prôner discours boobu parce que africain dañ ko mujj dañ ko mus a boddi ci àddina nit ku ñuul kon nit ku ñuul warul boddi mais beneen bi ci mooy nationalisme ñi koy woote ci àddina bi yépp booy suivre presse international bi boo demee ay Italie la gën a bare les pays de l'Europe de l'Est Scandinavie yi ci ñooñ la bare te ñooñ ñëpp boo koy xool ñi ko fay prôné maanaam danuy dem ba seen nguur jeex wala ñu politique politique bu amatul lu ñu wax wala ay régime yoo xam ne danoo échec maanaam ñi koy def mooy ñoo xam ne danoo échec liñ diggoon seen askan mënatuñ ko tey boo demee dëkk mel ne Tunisie Kayit Saïed Tunisie Kayit Saïed dafa raciste mais Kayit Saïed xamulu ko indi Kayit Saïed dafa daaneel nguur ya fa nekkoon ñëw nekk ci nguur gi te la mu diggoon waa mënu ko. tey seet du démocrate jubul maanaam yàq na Tunisie léegi bi mu demee ba mënatul wax dara tunisiens yi kayit xam lu wax tunisien xam lu mu def daf na leen seen ñàkk gi ak seen ndóol gi kenn tegu leen ko laay ñul na ci ginnaaw de kenn tegu leen ko kudul étranger yi nekk ci dëkk bi maanaam régime yi échec yi ak ñi amatul argument politique ñooy indi loolu te seetlul ñiy def loolu di exclure ñeneen ñi bu ñu xasee ba falu li ñu wax duñ ko def loolu tax daf mooy pour man façon nationalisme mooy façon politique bi gën a yomb ci àddina mais ah comme yenn booy yi ci réew mi ñàkk nañ liggéey ñàkk nañu xëy seen bopp li ci ne mooy seen bopp li ci ne mooy non ñun bu nu mënul lii nii la bu nu mënul lii lii la bu mënul lii lii la mi ngi mel ne nga am ay gan. joxoo leen ñam wu doy di ko jiñ gani yi est ce que nekkul te dépasse moo matul maanaam nga ni noonu tey de lu ma tey de kenn suurul ndax gan yee tax non du gani yi yow yaa amul dépasse bu doy mais état yu bari yi prôné li terre <laughs> du erroné li ci ëpp lool la duñ am argument politique duñ am argument politique parce que loolu mooy discours bi gën a yomb ci politique maanaam lool la ñenn ñi di bëgg a dégg. te discours boobu du discours boo xam ne ci doo ko def ci bopp ay intellectuel boo seetloo tayru ay boy ambulant jakartaman taximan ma ouvrier ñi ci ëpp ñoom ñooy jël discours boobu di ko téye parce que dandul xam enjeu bi lan la mais même ki leen di woo ci lool même bu doon bu fal munu ko parce que solution bi du exclure les autres mais li Sonko wax mooy solution bi fexe ban am ay quatre de séjour fexe ba réew mi bañ a den ruuda may ga ku ñëw mbëkk dugg fexe ba réew mi ñu sécuriser ko sunu frontières yi mais aussi ñu fexe ba képp ku fiy dugg ñu mën la identifier mais exclure les autres moom la François Mitterrand wala De Gaulle doon wax naan le nationalisme mooy boddi nit ki mais le patriotisme mooy sama bopp ma la gënal du bañ naa la léegi Tahirou nag bi Sonko wootee patriotisme mu koy wan ni maa la gën a egg parce que Sonko dafa woote patriotisme ñëpp. topp ko parce que dafa am régime yoo xam ne danoo archaïque libéralisme li jëm ci partie de gauche socialisme yooyu yëpp dafa dem ay idéologie ci àdduna danoo commencé di dee loolu tax populisme commencé di am Sonko ñëw indi patriotisme africain mais Kairou plus vite que la musique on danse mal léegi moom mu bëgg indi bëgg lii pour loolu muy lii jotagul jotagul parce que boo nee da ngay génnee Pël Fuuta yi wala dangay ngay génne Liban da ngay génne mais chinois yi ak français bi ne noonu la ñuy def pourtant ñoom ñëpp ay étranger lañ loolu question la bu ñu war a poser Sonko a compris que am waa jaspora ñoo ci ëpp seetloo li mu wax mooy nee na sénégalais yi nekk bitim réew ña nga nekk réew jàmbur lépp lu ñu am jariñ ko réew mi campagne na leen mais aussi. Sénégal parce que am na ay doomu sénégalais yoo xam ne ña ngay voté nan ci élection États-Unis yi man am na ñu ma ci xam France tan fay voté noonu la amee ay pël Fuuta yi am double nationalité di voté au Sénégal électorat boobu Sonko da koy récupéré sànniwu ko parce que Sonko moo yore état moo leen mën a rassuré maanaam tayru li mu leen di <coughs> li mu leen di mënu ko même bu ko bu ko réussir woon du mënu ko mais Sonko mën na ko léegi gars yi ñi pëlëfut ak ñeneen mais bu ñuy jox seen carte ku ñu koy jox Sonko parce que moo yor état seen jàmm ci loxo état la ne loo tax mu rassurer leen kon benn électorat bi muy récupérer pour loolu la waa ji nu mu intelligent we nu mu intelligent we léegi Ablaye bu jeexee rek def ma signe parce que retour bi dégguma ko loolu nag mooy enjeu ci Sonko lu tax nag élection yi jaral ko lu ne waaw ah, c'est bon lu tax élection yi jarakul la ne foofu lay daanale mooy taux de participation bi muy woote bu sañoon mu élevé te parti au pouvoir daawul woote pour pour taux de participation benn mooy 54 pour cent yi mu amoon présidentielle bëgg na lu ko ëpp Sonko moo tax mu ne 60 pour cent 150 députés kenn mus ko am assemblée moo tax mu yóotu foofu mais fi may daanelee li ci ëpp solo. mooy caution quotient personnel am moom moom lan lay peese ci politique moo tax mu dem ak Pastef demal boppam kooku mooy Sonko maanaam ci li mu ne mu doon élection yoo xam ne dimanche la léegi sénégalais yi ñooy tànn seen bu la neex ci ni dañuy ànd ak Sonko jox ko majorité gunge ko ba deux mille vingt neuf wala dañu jël réew mi teg yeneen loxo léegi nag sénégalais ñooy tànn lan moo gën ci ñoom ak lan moo leen gënal kon di gërëm ñëpp di leen euh, sant di fàttali rek benn kàddu bu ma njukkal saaxoo waxoon jabaru euh, jarbaatu Ablaye Wade mu ne un homme un bon un bon leader politique day nekk un leader politique nekk am day nekk day am légitimité politique légitimité traditionnelle légitimité historique ak légitimité charismatique te ñeent yooyu yëpp boo koy wër mi ngi ci Ousmane Sonko mi ngi ci kon di jégalu ñëpp di baalu ax ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm Omar bun Xattaab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi Abdou Toob ak Ablaye ak El moo du Diouf di nuyu Fàllu di jégalu ñëpp di baalu ax ñëpp ginnaaw élection yi incha allah ñu dellusiwaat bu boobaa ñu jàngat résultat yi ak lan la sénégalais yi décidé dimanche incha allah. lépp ci jàmm ak salaam rek euh, Omar Bun Khattab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi kon beneen alxamis incha allah beneen fokki ci solution info TV.